ñaar fukki xar ci da am wéef rek mu lonke xar mu nekk deux cent cinquante mille trois cent la doon. lu tax yow Kaaru Njaga Njaay ah Kaaru Njaga Njaay da ngeen di fayee wéef yéen père. waaw waaw <laughs> père amu leen QR code waay. léegi ah, mais taximan yi ñoom ñoo am QR code wéef gis keneen ko am. pas géwél yi am QR code. dégg naa pas géwél yi dañuy takk njëriñ léegi bu fekkee taximan ñoom dinañ ci tànn cinq taximan par jour may la vingt cinq mille francs bon d'essence wala gasoil yaa xam sa oto li muy jël ragal na <laughs> taximan chaque jour cinq taximan dañ leen di may vingt cinq mille francs bon de carburant cinq taximan chaque jour ñu jox leen versement vingt cinq mille francs enveloppe vingt cinq mille francs ñi nga xam ne waxuma jox ma sa numéro ma yónnee la ko par wave de déedéet maanaam man damaa am sama taxi scanné yow yaa ci bokk ku ko amul kon gaawal nga daw uti ko ndax loolu la wave indi ci ay xéewal alaaji nga ni euh, bi nga demee Koungheul loo fa gis. waaw ah, la ma fa gis mooy liñ nar a seetaan ni ayca. ñu dem seetaan ko kon. bañ fay yàgg bañ fay yàq. waaw ñu xool waa. mbégte contentement la am saa su ne di leen dalal seen rubrique à la découverte de ñu ngi fi ci diwaanu Koungheul. Koungheul bokk benn ci département Kaffrine waaye tamit lëngoo dëkk bi nga xamante ni moo di Koumpentoum ak Tamba kon tey Koungheul la ñu nar waxtaanee ci lépp loo xamante ni ay bal nekk askan wi. mbokkee xarit dañuy def lu ànd ak yéen à découverte de Koungheul sur la 2STV. Dembélé am na ñu ko fi jiitu woon. mi ngi lakk sen eh, kër yi si la ñu fi jógee fekk maabo yi jóge lingeer ñëw fi ñoom ñu bàyyi leen fi dem Koungheul soose ak Duuba. bi ñëwee maabo yi nekk fi boo xam ne ñoom ñeeñoo lañ suñ moomee dëkk géer duñ fi ñëw ñu jëli ndaw kundaay ndax kungal kasaasa moo ko mag ak ko ba gëlub ndaw moo fi ñëw nekk fi neef chef de loolu mooy cosaanu kungal la am nañ fi ñaari natt ba si ñett ndax bi tay bii nii nattu teg teggi la am na beneen bu am talaata boo xam ne moom lañ tuddee ñetti caabi yaakaar naa xëy na dégg ngeen ko si réew mi am na beneen boo xam ne natt xew la ku xew la rek dañ lay daal di nattal. moo tax ma ne la jàppalante la ak suqaliwante mayente doole. am nañ kees boo xamante ni ku ci soxla dara dangay dem daal di jël ko fa te kees boobu ki ko fondement mooy le maire. ci façon métier bu nekk mu ngi fi ndax commerce mu ngi fi mun naa wax ne nag commerce moo fi ëpp mais am na ñoo xamante ni ñu ngi def transformation. ndax tey da ngeen a ñëw fekku leen fi ñu bari ndax ni asamaan si doon tawee moo tax waaye bépp loo xamante ni si yëngatu mu ngi fii. fii mooy route bi nga xam ne mooy jëm Lour Escale départ jëm ba Taïf Cekkeen mën na continuer tamit ba dugg fi nga xam ne mooy Jolof. yaakaar naa ne fii keroog pour ñuy dugg fi problème la mais commencé nañ ko réfectionné ba ñu ngi koy gratter te goudron bu ñuul kooku lay doon incha allah rabi dem ba fi nga xam ne mooy Jolof. jusqu'à mais Lour yoon bi nag moom day yoon boo xam ne yoon bu am importance la. ndax yoon la boo xam ne li fiy traversé chaque jour dafa ëpp te daan dem ay am ay danger am ay problème yoo xam ne mooy loolu kon bu ñu ko réfectionné mu doon tani tali bu ñuul kooku vraiment loolu dina doon lu am am solo. waaw olak mooy ndox mii ngay gis ndox la boo xam ne moom tam dee ko olak pour un projet de trente milliards boo xam ne ne même kër yi ci sës ak yëpp dañ leen dédommage yëkkati leen mu ñu réfectionné ko mu doon bay boo xam ne day doon bay noor boo xam ne ni ndox mi dootul bouger fenn population bi nga xam ne ñoom ñoo ci sës yëpp mën am ñu jógee Kaolack Touba Gambie fépp la bagage di jógee di fi ñëw ndax fii daanaka frontière la. waaw loolu am na nag dañuy jël fii di yóbbu ci dëkk yi di jël di indi fi na wàllu mbay mi xam nga fii dañuy bay gerte gi daf fi jógee dem partout liggéey mboq mi day dem kànji gi légume bi itam dañuy ñoral fii di yóbbu comme ni ñu jëlee mboro di indi fi ñu nit bu ñorle noonu lañ ko fi jëlee di yóbbu di yóbbu mbooro ak feneen waaw wax dëgg yàlla Koungheul marché Koungheul la ñu am joma fi ne ñu nangoo liggéey ñu mën a liggéey na ñoo fi ne. ndax ren lañ door di am daral dara boo xam ne bii nañ nañ ko bëgg am nañ ko ndax dara boo demee ba nga xam ne am nga këyit mu nekk ni fii moom sa la bu ñu neexee tabax fi suñu néew ñuy fanaan wala fu ñuy yendaloo wala lépp suñu bëgg-bëgg suñu xañ ak suñu lépp di fi ñëw xam nga loolu sant yàlla la te itam ñu ngi fi am suñu wërsëg ndax xar yaa ngi fi bay yaa ngi fi ganaar yaa ngi fi e, alhamdulilah rabbil alamin léegi léeg ñu am nag léegi ñu am fas léegi ay mbaam yoo xam ni man la ci jaay di jaay di suturloo te njëg itam bonut ndax ku bàyyee ko ci dëkk ba bëgg gàtt soo ñëwee fi man nañ laa jaay am ci dara waaw parce que dara gi daal ñun jig nañu daal. li fi sooxe woon tey mun nañ ne cadre de vie bi nga xam ne mooy Koungheul euh, nekkoon na loo xam ne dafa tumuranke woon bu baax a baax a baax euh, fekk nañ fi aussi dëkk boo xam ne lépp loo xam ne wàllu yoon la. jafe-jafe la fi woon euh, eau de ruissellement wu taw yi bu tawee ndoxu ngaan yi aussi jafe-jafe la woon ci dëkk bi ba tax na waame bi da doon yàq yoon yeeg yëpp donc ñun bi ñu ñëwee loolu leen fekk ci dëkk bi bi ñu ñëwee nag ñu ne nañu jóg jéem a xool naka la ñuy def yan pexe la ñuy wut pour vraiment jéem a saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñu fekk ci dëkk bi. waaye defe naa ne sumb nañ fi liggéey yu mag yoo xamante ni dafa jëm ci saafara jafe-jafe yooyu ma limal leen tey bokk na ci li nga xam ne jot nañ ko fee def muy fexe ba nga xam ne euh, deux voies yi nekkoon booru marché bi tey ñu aménagé waat ko defaraat ko mais aussi bokk na ci école yi nga xam ne yu ci bëri dañu nekkoon dans un état de délabrement très avancé yooyu itam sumb nañ ci ay jéego. ba defe naa ne gis ngeen sax jot ngeen doxantu ba gis yenn chantier yi donc ñu ngi koy defaraat marché bi aussi bokkoon na ci li nga xam ne euh, tawat la woon boo xam ne waaye jëfandikoo yi dañ ko doon saa su ne rek di ko jàmbat ñu waxtaanoon ceeg ñoom loolu tamit tey ñu ngi ciy indi ay saafara defe naa ñaari hall principal yi nga xam ne ñoo nekk ci marché centralu Koungheul bi ñu ngi koy tabaxaat bokk na ci aussi marché aux viandes bi ak marché aux poissons donc yooyu yëpp tey sumb nañ ko ñu ngi koy defaraat sport dafa am solo ci xale yi te defe naa ne nawetaan dafa nekk loo xam dafa bokk ci seen compte ci seen quotidien ba tax na ñun bi ñu jëlee dëkk bi loolu nag doléance bu yàgg la woon euh, di wax rek ne mairie bi fi nekkoon jotoon nañ ci sumb ay jéego mais naam doyul woon ba taxoon na xale yi doon ko tawat saa su ne ñun bi ñu ñëwee dañu def pexe ne nañu fexe au moins stade bi ñu fexe projecteurs yi fi ne ñu taal ko mais aussi réhabiliter vestiaires yi ak euh, toilettes yi bu ñu paree ci loolu aussi jéem a def la piste d'athlétisme bi nga xam ne mooy wër podium bi ñu defaraat ko moom it ba nga xam ne vraiment ndaw ñi dinañ ko mun jëfandikoo ci ni mu gënee waaw jigéen ñi waa jigéen ñi ñaar yëpp ci la euh, déjà damay annoncer ici devant tout le monde que déjà au niveau de Koungheul dinañ ñu tabaxal benn plateforme pour les pour les femmes à hauteur de 400 millions boobu aussi dina ñëw d'ici décembre dina jublu ci liggéey boobu euh, aussi ñu ngi ci voies et moyens yi ñuy mun a def pour mun a fexe ba jigéen ñi ñu gën leen tàggat ci des métiers yoo xam ne génératrice de revenu pour permettre leen ñu mën seen boor am yokkute parce que tey ku suqali jigéen rek suqali àdduna diine yi fii jotee jaar fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin góor gu ñu daan wax góor gi Maxtaar Sall moo nekk ka nekk élimaanu eh, jumaa ju mag ji ba mu fi jógee góor gi daam si moo taxaw ba mu fi jóge Bamba Sall moo taxaw ba mu fi jógee la ma yàlla indi ci jumaa ji Koungheul ñun moom lañ am moom lañ yaakaar fu ñu mën a ne bu Koungheul avancé rek ñun am nañ avancement. jërë ngeen jëf mbokk yi xarit yi lii la ñu indiloon fii ci diwaanu Koungheul seen rubrique à la découverte du Sénégal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen gox fasantikoo ci diwaanu Sénégal jërë ngeen jëf. Koungheul une très grande ville. Alaaji maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci émission boobu nga def. maa di sant sama gars yi dañ maa xajal tey ma dugg. non lu baax donc di di naa xajal nag xamal loolu. xamal di gërëm aussi ñi nga xamante ni Pape li may wax tout le temps dama ko wax dama koy wax di ko waxaat. gan dafa métti te boo ñëwee ñu ganal la yaatal la permettre la ànd ak yow nga visite dëkk bi loolu dafa dafa dafa nekk loo xam ne. Mm. suñ demee si dëkk yu mel nii ñu dem nañ Koungheul waxtaan ak waa dëkk bi mais waxtaan ak waa dëkk bi day fekk waa dëkk ibbil la seen buntu franchement parler waa Koungheul ibbil ñi seen buntu franchement parler nëbbu ñu dara lépp loo xam ne bëgg nañ ko visiter ñu visiter ko ak suñu xel mu dal ak suñu ak suñu ak suñu professionnalisme donc ci noonu dañ ciy gërëm ki nga xamante ni mooy Mansour moo ñu doon jàppale tout le temps ci yenn ci yenn ci yenn affaires yi ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Binte aussi tamit jigéen ju jàmbaare moom tamit jàppale si affaire bi. Mhm. ak euh, ñoom Pomane ñoom ñoom ñoom ñoom Sadibou logistique bi. ak euh, ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci affaire ba may yemb. Mhm. ak euh, le maire Badolo Ismit franchement nit ku humble nit ku modeste macha allah jàppale nañu baax a baax ci liggéey bi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñëpp ñoo war wër Koungheul. si noonu damay gërëm koo xamante ni Koungheul waala mais feetu Koungheul la muy Papa Ba day jàppale booy Koungheul yi Dakar fii presque mën naa ne. la majeure partie des jeunes yëpp ñu ngi si entreprise boo xam ne moom moom moo fa nekk dañ ko jël mu liggéey mais di leen jël journal yi. Mhm. mun naa ne amul benn booy kungeel buy taxawal Dakar fi mu toll nii. boo ko oowee mu ñëw. aji waroo xaabaabal la merci beaucoup jaajëf merci beaucoup borom weeri ji borom weeri ji nga ne loo def merci